wabillahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim radiyallaahu an ashaabi rasuulillah wa laa hawla wa laa quwwata illaa billah yaa himmata sheikhi uhduri lanaa bi haadal mahdari wal taat fii bi nadaratin taati lana bi zafare ñu ñëw léegi suñu darsu nasiha incha allah yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne inna min kunuzil birri kitmaanal masaa'ibi bokk na ci magasin wu mbaax yi ngay nëbb musiba yi nit ki duut musiba boo xam rek musiba boo dégg rek àdduna bi yëpp jot ci dégg ngeen diw lim def gis ngeen diw lim wax xam ngeen diw lim nangam ak nangam dégg nga lu nit def rek nga nekk di ko wili loolu bokkut ci mbaax bokk na ci mbaax nga xam ay musiba ba noppi nga jël musiba yooyu noonu nga denc ko dégg nga bañ koo feeñal loolu mooy dëgg-dëgg mbaax waaye mbaax du firi mukk lépp loo xam nit ñi jot ci wala koo xamal musiba rek dégg nga àddina bi yëpp yëg loolu noonu loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mbaax kon inna min kunuzil birri kitmaanal masaa'ibi bokk na ci ndàmb ak mbaax yaa ngi dégg eh, nëbbu eh, musiba yi dégg nga beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wax na ne barru abaakum tabarrukum abnaakum mu ne dee leen baax ci seen waajur yi dégg nga seen doom yi baax ci yéen dégg nga dee leen baax ci seen waajur yi nit soo amee lu baax yéene ko sa waajur sa waajur mi la E, e, e, ëmb dégg nga juróom-ñeenti weer lu nekk mu daj ko ci bakkanam waroon ciy des yaa ngi dégg waaye ànd ak loolu yëpp mu mu ngi ànd ak tàngoor mu ngi ànd ak feebar mu ngi ànd ak ay waccu mu ngi ànd ak jafe-jafe yëpp yaa ngi dégg loolu yëpp te yow yaa ko teg da nga waxtu woo gisee boo génnee ci moom rek nga gis mu féex mu am jàmm coono yooyu nga ko teg yow bu fekkee ne borom kóllëre nga boo fàttalikoo dégg nga ni nga jaaree ci moom donte ndogalu yàlla la nag mu yàlla moo ko dogal ci moom waaye yow itam war nga koo delloo ko leer googu noonu lan nga ko war a delloo mooy baax ci moom moo tax yàlla ne wa qadaa rabbuka laa taabudu illaa iyaahu wa bil walidaini ihsaanan bu yàlla dogal na ne bu leen jaamu kenn kenn kenn ku dut yàlla mu waaye na ngeen rafetal seen diggante ak seen waajure wax na ne maa yablughanna indaka al kibar ahaduhuma aw kilahuma falaa taqul ma uffin uffin yaa ngi dégg mu ne amaat na sax ñoom ñaar ñu màggatee sa kanam wala kenn di ñoom dem ba màgget sa kanam yàlla mu ne bu leen wax dara ëf baat ak ëf sax ñu wax ni nga waaye ëf waay may ma sama jàmm waay yàlla mu ne bu leen leen ko wax bu leen bu ko wax mukk say waajur da nga respecté say waajur waajur dañ koy yëkkati waajur dañuy baax ci moom waajur teraanga boo gis mu baax rek dégg nga eh, eh, eh, nga yéene ko sa waajur wala nga wutali ko sa waajur nga jox ko ko boo ko defee yonent bi mu ne tabarrukum abnaakum yéen itam na ngeen xam ne seen doom yi dinañ baax ci yéen dinañ leen defal teraanga waaye ku mbaj baayam yenu bam ci kaw dóor ci suuf dégg nga kajji ne la wóor na yow itam xaaral sa doom a ngi ñëw dina la yenu ba ci kaw dóor ci suuf kajji te doo ci mën dara yaa ngi dégg te bul fekk bul bul bul bul xam mukk nag mbugal mi lay fekk ci yàlla subhaanahu woo taala parce que da ngaa ñàkkee teggin waxu yàlla yàlla waxoon na na nga rafetal sa diggante ak sa waajur yow nga ñaawal ko boo ñëwee mu ne la lii laa la waxoon nga bañ koo def kon mbugal moom moo lay fekk si fii nañ moytandiku loolu bu baax ñu bàyyi ci xel beneen bi mu ne waifu ani nisaai taifu nisaakum mu ne na ngeen fegal seen soxna yi ci laaj dégg nga maanaam foo fekk rek sa soxna fexeel na ba da nga ko fegal ci laaj maanaam bul bul bul nangu muy nekk kuy laaj lu bëri koo xamante ne nag danga nga koo tere muy laaj lu bari dëgg-dëgg dafa am foo ko war a féete te loolu ci góor la war góor su fekkee ne da ngay jékki-jékki rek nga gis sa soxna yor dix mille vingt mille vingt cinq mille wala cent mille wala lu nekk dégg nga mu yor ko te doo ko laaj lii foo ko jëlee dëgg-dëgg yow yow yow amoo jom amoo jom wala su fekkee ne itam fekk nga ko waxtu nekk mu ngi yor lu somb toll noonu dégg nga te lu mu yor rek nga ne ko waa yow lii kan moo la ko jox yow lii foo ko jëlee nga indil ko problème fexeel ba yow itam kon nga koy jox yaa ngi dégg fexeel ba nga koy jox jigéen. dañ koy teree laaj lu tax nga koy teree laaj ni koy teree laaj mooy nga koy jox yaa ngi dégg nga koy jox moo tax mu ne ifu dégg nga wa ifu ani nisaa yi dee leen fegal seen soxna yi ci ñu leen di laaj te ifu nisaakum yaa ngi dégg su boobaa seen jigéeni bàyyi di leen laaj yaa ngi dégg su boobaa rek ñoom itam ñu arrêté di sàkku ci yéen kon nañuy féetewoo di jox jigéen ñi parce que loolu lañ la wax bi nga xamante ne da nga yaa ngi leen di takk beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne wa man tanassala ilayhi axuuhu fa lam yaqbal laa yaridu alayya xawda eh, yowma alqiyaama wa man tanassala bii dina firi ñaar dina firi ñaari anam dina firi koo xamante ne dafa ñëw di faggu ci yow dara maanaa di sàkku ci yow dara waaye dina firi koo xamante ne itam dafa ñëw ci yow di sàkku nga setal ko te nga mën koo setal loolu yëpp mun na koo firi amante na sala képp koo xamante ne maanaa sàkkoof na ilayhi ci yow masalan sa mbokk ñëw na ci yow di sàkku ci yow dara falam yaqbal te nga bañ ci fekk yor nga ko nag dégg nga nga bañ koo dimbale yaa ngi dégg wala koo xamante ne ñëw na ci yow ne la man kat dama dañ maa tuumaal te yow rek yaa ma mën a setal ma bëggoon nga ñëw setal ma dégg nga te yow mën nga koo setal dégg nga nga bañ loolu noonu dégg nga nga bañ nangu loolu yonent bi ne laa yaridu alayya xawda yowmal qiyaama mu ne kooku duñ ko wëggal mukk duñ ko rootal mukk ci déegu yowmal qiyaam bi maanaam déeg bi lim ci namu mooy déegu kaw kawsara bi moom du ci naan mukk mukk mukk mukk loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal dégg nga moo tax waxtu sa mbokk ñëwee ci yow dëgg-dëgg jëm koo setal bu fekkee ne ci dimbali ko itam jëm koo dimbali waaye am na koo xam ne mbokkam su ñëwee ci yow su ñëwee ci moom dégg nga di ko jàmbatal problème am aw ma la koy njëkk wax ba noppi non seulement du yem ci awma bi waaye dafa ëlbatiku di yàqaat deram diw moo mën a ñaan diw moo mën a nangam diw moo mën a nangam a nangam te loolu yonent bi daf koo tere dégg nga waxtu woo xamante ne wax nañ ne na nga dimbale nit sa mbokk ñëw na ci yow ne la dimbale ma te nga mën koo dimbale dimbale ko waxtu wu ñëwee ci yow la setal ma te nga mën koo setal setal ko lu dul loolu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu soo bañee dégg yow bu yomal xiyaamee géeju kaw sara bi moom duñ la ci rootal doo naan mukk dégg nga beneen bi yonent bi mu ne tarku charri sadaqatun dégg nga mu ne bàyyi eh, bàyyi bàyyi bàyyi musiba dégg nga mu ne loolu sarax la dégg nga musiba jóg rek nga bàyyi ko bañ a bañ a yëkkati musiba <coughs> dégg nga mu ne loolu wala bañ di def musiba mu ne loolu loolu sarax la dégg nga loolu itam nañ ci bàyyi xel beneen bi mu ne taarrafa ilallahi fi raxaa'i yaarifka fi shiddati mu ne fexeel ba yàlla xam la ci jamono bi nga féexee dégg jamono bi nga xamante ne da feex féex jamono bi nga xamante ne am nga wërsëg jamono bi nga xamante ne sa lépp a ngi baax jamono bi nga xamante ne lépp a ngi dox fexeel yàlla xam la loolu mooy lan mooy fexeel ngay jaamu yàlla fexeel ngay tudd yàlla fexeel ngay jeg yàlla su boobaa nag soo demee ba am jafe-jafe su boobaa itam yàlla daf lay xam waaye su fekkente ne yow soo amee nga wan yàlla ginnaaw nga dem ba am jafe-jafe na nga bëgg dellu eh, ci yàlla bëgg dimbale yàlla du la sax yaa ngi dégg yàlla du la faale loolu nañ ci bàyyi xel loolu nag aarifuna billahi ñoom ñoo ci gën a dégg surtout mbokk taalibe da gis mbokk boo xamante ne bu xasee ba am dara moom koy fàtt na euh, euh, xadaraam fàtt na sëriñam fàtt na ay mbokki taalibeem dégg nga beddeeku na ay ànd ay xaritam da dem sax seeti ko dégg nga wala da gis mbokki taalibe dem seeti ko dégg nga mu mu mu naan nekkuma feek damaa tëjoog dañ may déranger dañ may nangam nangam parce que féex na léegi nag su demee nag ba mu mu ñàkk amatul dara nga gis mu daw jëmaat ci eh, eh, sëriñam sëriñ bi man kay ñaanal ma bilaay soo ma ñaanalee damay nangama nangam nangam wala mbokk taalibe nañ ma ñaanal dégg nga nangama nangam yàlla mu ne du ma la faale du ma la faale moo tax bëri na koo xam ne dafay sonn di ñaan lu ba sonn te du am dara lu tax du am dara parce que ba mu féexee dafa jubluwut yàlla ba mu féexee dafa jaamuwut yàlla ba mu féexee dafa santut yàlla bu demee nag ba toll ci jafe-jafe yàlla nee na soo delloo ci man yaa ngi dégg du ma la faale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fexeel bañ xam la taarraf ilallaahi fexeel ñu xam la ci yàlla fi raxaa yi ci waxtu féex waxtu woo xamante ne yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci lépp dégg xel mu dal mu ne yaarif ka yàlla xam la fi shiddat yaa ngi dégg ci tartar yi dégg su ko defee loolu mooy nasiha yi ñu tënkee ko foofu noonu ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla defal ñu jàmm wërsëg naataange barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa daalika alaa laahi bi aziiz wa salaamu aleykum wa rahmatullah يجالس أقواما والأصوات ترفع دائرة الفضل كن فرنمي ورغي قد يا الله نلجد الكسل دام سيدي برام